naataal fukk ak ñaar juddub Jésus benn la yàlla dafa yónni ab malaaka ci ab janq bu tudd maryaama boobu maryaama amoon na ku ko doon labat ku ñuy wax yusufa malaaka mi xamal maryaama ni dana ëmb te du sëy ak benn góor maryaama xamoon na ni yàlla moo bind asamaan ak suuf ci kaw kàddoom xamoon na ni yàlla buur bi lu mu digee mën na koo def mu gëm ko yàlla feeñu na it yusufa si gént mu xamal ko ni mariama masula ànd ak benn góor wante yàlla mooy def kiraama boobu bu doy waar si moom yàlla sant yusufa ak mariama ñu tuddee doom jooju jésus maanaam musalkat bi yusufa topp waxu yàlla ja ba mu mat